asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi xam nga xel day fattu waaye suñu mbokki yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew sànn ñeewante na leen lool wax dëgg yàlla ndax tëj gën leen tëj métti na lool mënatuñoo génn mënatuñoo dem fenn te bàyyi fii njaboot dara yóbbu leen fa lu may di daan seen doole bëgg lu yore seenu njaboot ak lu indi fii ci Touba gi nga xam ne ñu bëri fi lañ cosaanoo ñi dëkk Louga ñi dëkk Dakar ñi dëkk Ndar ak faay mën a nekk rek te nekk bitim réew ñu leen xam ne ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax ñu ngi leen di ñaanal tamit fu mu toll feebar boobu nga xam ne ñu ngi koy dégg ci Italie ak Espagne ak Amérique ak fu mën di doon yàlla leen ci dégg doy ci barke Serigne tubaa bu loolu weesoo marche occas bi nga xamante si nii trois heures quatre heures sëñ bi ñu ne ko ràpp tëj te man heure yooyu sama classe bi nga xam ne daan mosloo kat dijjanti mbedd mu ne nga solo fa mën faa mos dara mënatuñ koo mos ñu bëgg a tëj marché bi boole ci ay waay li lay rusul dañuy sàkku ndimbal ngir yàlla ko bokk ndax ay jullit lan sëriñ Tuubaa lan yaakaar liggéey doo nga lan xam daan suñu doole waaw ginnaaw nag liggéey nga xam fa nga daan liggéeyee ku néew ñu lay jàppale heure booy tëj ak booy ubbi ñu ngi sàkku ndimbal di ñaan sëñ bi corona mi nga xam ni lépp lépp corona moom xam naa dana ma mere waaye lu ma laax dana la ca laaxaale ndax lépp yow ndax alal dakaar yi nga xam ne ñun moom lañ yoroon yaakaar koos néew yoroon ci suñu kër bis bi sax nga mën a dem Dakar ñëw lu bon bon nga mën a dese junni boo dépassé rek mën a tuñoo dem Dakar fi ne kenn xamul kañ laa fa gëj keneen noonu keneen noonu maçon yi corona moom daa bàyyiwut kenn bàyyiwut daral ga bàyyiwut marché bàyyiwoo hôpital ya bàyyiwoo domine lan ko yow xaw ma fa ñuy jaayee jën yow bàyyiwoo fenn fenn non corona nag sëñ bi waaw ma reetaan ko walaay bala ma ñëw sama kaw sax man ndax boo réewul fu lay jàpp na mer moo tax léeg boo waxee ba yàgg faaw nga mosal kooku ree tuuti yow ñëpp nga laal ñëpp ñëpp ñëpp nga laal ñëpp bàyyiwoo kenn àddina sépp nga nga nga nga nga nga lare ko loolu ñaan lare moo tax Youssou Ndour sëñ bi <laughs> ku mën a way la ñu naan jamono day war a ngiku ku toog ki luy war a ngiku loo mën a def loo mën a def war a ngiku jooju Youssou Ndour waxoon fi ne moo ne kàpp ci sunu kaw nag bu lii moom bu jàllee fi ne eh, sunu borom nag xam naa am na lu mu ci namm ndax doomu aadama laa dëgër bopp loo ba loo ko tere du ko bàyyi waaye xoolal xoolal lii ci ci ci lu ñaari weer rek ñu tere ni ci yu bari ñu bàyyi ko far la force kon xanaa bu feebar bi jàllee ñu jéem a dellu suñu xel sama classe bi nga xam ne dara loo wax ñu ne dara ñorul leen gëmuñu dara ay corona bi daan tax ñu bëri a ca gëm dara bu loolu weesoo ñu ngi sàkku ndimbal sàkkooti ndimbal sax laay wax ndimbal li sax daanaka mu ngi ñëw par ndànk-ndànk sax ndax fi ne cat catab baaxut man nag cat booy seet daa mel ne dama koo judduwaale ndax fi ne daa am lu sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma waxoon baat boobee fi ne moom laay doxee ba tax ku ma romb da ngay jàpp ne fi ne daal mooy loolu ndax sëñ Cheikh Mbacke dañu woon jamono bu naqaree da ngay sol te noppi bon bee ca laa toll fi mu ne moo tax may jéem a sugg sugg sol sama trois morceaux nii takk sama montre muy xooy waaye fi na dara dara damay fen rek maa gën a jommi koy jommi waaye nag sant rek ndax eh, yàlla boole na ma gaa yu baax yoo xam ne wax dëgg yàlla fàttiwul ma benn yoon surtout waa kër sëriñ Fallu yi moom mënuma leen a fay ndax man bu ñëpp ma ne man téer yi moom lay njëkk a yërëm ndax dañ dellu ci mbay wala ñu seet pexe ndax man duma ma lu wax dëgg yàlla loolu rafet laay sol te lu ma sol doon ma koo jox kon sama bokki téer yi moom amuluma leen njariñ ñoom nag ñu ngi potoxloo ci yëf yi ndax gis naa ñuy ñëw ay masque di ko jaay di ko jaay benn 300 fi ne ay waay jàmmi waay téere yi moom waxatu dara ndax potoxlu nañ ci maa ko gis sama bët ma may kenn nett liwu ma potoxlu ngeen ci defal ngeen ay masque di ko jaay téere bu ma xam na bay ba nga waajal ndax naa ñëw ni la allé si sama wàll waaw bii nag sëñ Modou Mbacke mi ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm parce que vraiment li tubaab wax ni élargissent des jeunes dans un sens venu par Firdi des contraventions te corroborablement dalul sëñ Modou Mbacké ndax moo nag nekk bitim réew rek fàtte ñun ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal defut loolu ndax euh, ndax yi mu ñu yónnee ñu ciy def suñuy vidéo yi moon na ko ca bañ fekk ndax moon na rek maa ngi bitim réew tubaarkàlla kii kete kaas Sambata Gora Ndiaye waaye deful loolu kon sëñ Modou comme ni ma koy faral di waxee rek il a sonné vos pires du de tronagalment du des vocipavures du du du de se tenir da dans vos bibles on pourvit dix de Cheikh Modou Mbacké les votre passion de on pi for pirti si celtation dans son honneur de Cheikh Modou Mbacké Sénégal les bitim réew la part parti Sénégal parce que lii rek firnde la ci ono nangarma ponir da reste yi da restauration de Cheikh Modou Mbacké ina nobirement di de euh, de de de de de compensation parce que comme dañuy comme compensation li mën a tekk dafa bëri tekki na nit koo xam ni euh, mbir da ko dab rek mu bew fàtte ay nitam nit dab ko mu fuuy jamono soppi ko mu soppi ko di doxal weneen doxalin waaye yow sëñ Modou Mbacke wax dëgg yàlla loolu la kon ñu ngi lay ñaanal ci sa barkeb maam yàlla guddal soow fan te wéral la te yàlla ubbi avion yi nag ñu mën di dem ak a ñëw ndax Modou Modou yi sonn nañ waaye ñun gën a sonn ndax man fi ne am na boo xam ne yóbbu naa ko aéroport ñaari yoon nu astaxfurlaa benn bi dama ko booleeg oto mu yóbbu ko dem ba egg mënut a dem. beneen bi ma yóbbul ko sama bopp mu yegg ba aéroport nga xam ne mënut a dem nga xam maa fa jaaraat euh, andiwaat ko Touba Touba gii la dëkk te dal na ko dal na moromam dal keneen ak keneen ñu tëj aéroport yi hmm? tëj poor yi Dakar lu gàtt gàtt mu ma dugg loo gàtt gàtt wërsëg da fa mos dara loo mën a dépassé waaye alo Dakar ndok ba feneen amee wax dëgg yàlla alo yi taxaw nañ waaye wax dëgg yàlla daal. ñu ngi sant Serigne Touba daal yàlla na ko yàlla fayal doole leeram tas na ci barkeem dëkk bi nga xam nag moom la nekk muy senegal nit ñi nag doole dalal seen xel bu baax corona moom dugg na Sénégal waaye du fi amee ndam dee yi métti yi dem ci yeneen réew yi giñ naa ko jëmmi Serigne Touba du fi am ay ñaar téeméer nit rek ay téeméeri yi faat loolu moom maa ko garanti sama bakkan bi laa ci teg du fi am ndax ay nan la si na taax nii wa asuraani bi man wasiiratil xuddaanu nay nii naysal bërëni naysal muraara naysal fasrini loolu rek bu ko doon ñëpp da di ko wer di ko nit sa kurus rek benn kaa moom mën naam waaye déegi moom du bëri noonu bu soobee Sëriñ Tuubaa loolu moom maa ko garanti kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen